yëg si kaw dama ne Fallou kii kii kii wala moom yow kii mënoo ma ko baal kii. waaye su dee fekkee sa xarit man bëgguma ko doo ko bàyyi. tamit nga bëgg a wax à force kii seen waa kër baaxuñu. kenn baaxu seen famille ah bala maa dee muy wëccaare rek kanamam gu ndaw gii ah bala maa dee muy yërëm dox maa ngi xaar ba ma kii kii kii kër gi ah pour lan sama kër gi bu ma la ko gisatee di nga xam. ba ma gisati la. booy. muy <laughs> démb soirée ba dama ree bëy bëgg a dee. xamal sa bopp rek. si booy sama yaay kay kay sama yaay sama yaay. taxaw. sama yaay wax yaa gën a am ma ànd ak yow wax quoi. su. waaye. foo jugee. laajuma sa yoon nekku yow fu ma jógee. Fallou yow ku ñàkku jom nga Fallou Fallou chaque jour la baal ma kii ay ay fa nga bëgg Fallou Fallou tee ma xaru baa ma yuuxu Fallou man bëgguma kii baal kii Fallou chaque jour la yow moom bu fekkee da ngaa jox sama doom ji doon nekk ba tax mu lay topp su ma tey jii bu sooba yaa nas jue yow da ngaa mën dama yow ci nga yow Fallou yow yaara ni jaay ni aca kër ga eh ni kër ga laa may ma kii tay faa ma jug si moom ndax seet naa ba seet ku bu ma si jugul kii dina yóbbu sama sama doom jii di fàllu hmm. mooy ànd koo xale boo xam ne bugguma ko mënuma koo gis. mooy xale bu gàtt bi. ma tere ko koo tere tere tere tere ba sonno mhm. faalu ne du ba xale bi. Mhm. wax naa wax a wax ba sonn def naa lu nekk. Mhm. faalu ne du ko baax. man nag tey jii damaa jëloon décision ñëw fii nga dëddale ma maa xale bi bu ko gis bu mu àndatee moom bugguma xale bi bugguma ko tey bugguma ko ëllëg. waaw bugguma ko tey bugguma ko wala man daal loo ma si jàppale tey jii nii ma jël moo tax ma ñëw fi nii soxna si loo ma si jàppale rek ma jël wuyu ma waaw incha allah da mhm. sa xel dal mhm. incha allah mhm. sa doom da ko bàyyi si nii wala si nee am soo bi boo demee fexeel ba mu naan ko dégg la ma la wax waaw sëñ bi bu ko naanee dina ma dina ma eh. jàppale sama doom incha allah bu ko naanee day dof wala ma gën a. àngatee ah, ma jox ko ko sëñ bi kon maa ngi dem. waaw maa wax fii nii. di ngi dem maa ngi àttali. merci waay sëñ maa ngi dem léegi joxe ko ko. sama doom sama doom Kare. ah ba. sama doom non de. ça si jàmm naa si jàmm. ne soo laa bëggoon nga jox ma ko mu. muur bi ànd ah, moom laa bëgg. ma jox ko soobe. nga jox ko soobe mu naan ko. loolu laa bëgg. mais faa mu teg dara ci loxo ay doom man sa yaay la waaye mère am na loo risque la dem jox ko. ma rek man sa yaay la dara rek. ah ku la ah dom, ku la bàyyi. dara rek yaa ngi ko sa yaay. risque la. ah risque la de ah bariwul de waay téye ko. mais na ko rek. waaw na ko naan rek ay si bi samay feer sax nga ma gëj nga gàll sa mun maa ñëw sa gaal ndax sa yaay wax may wax man bëgg bëgg ma bëgg ma bëgg ma di ko wax ko wax moo ma gëj sa gaal man comprendre lu parce que sama yaay daf la war def comme doomam comme man ni ma nekkee doomam daf la war a nekkee mais nekk mais man dem dox di daw ci kanam dama ragal sa yaay trop. waaw booy léeg na. de am jéem kóola bi jooy est ko bu ñëwee di di leen ne mën naa am sax mu retourné ma dem seen gàllin fii nii yaam di ma wax yenn kii nii jaru ko du ko. waaw mais Moustapha. ah def nii dinaa la gisee. so xam naa ne reer ko baal ba am jox tey baax nga de. soo nga ma laal. Ah, waaw na yow. ay sa waay tey sama copain. ak a tàng na booy jaay perek la ko waaw mooy jaay perek koñ bi nante la. booy xam ah, naa ne booy dinaa ñaar sama téléphone laay wutee. booy si nga ko bàyyi booy maa la bëggoon woo mais damaa xam nga seeyaay moo tax mënoo kaa indi bàyyi. te su ma demoon ba ay treize heures. saa yu dëgg dëgg dëgg yow man ma xiif moo tax ma bëgg ni bëgg la leer naka dem na jënd sa saa di defal nang say li dañ ma ko may léegi man bo bëggee sama mën na la ko may man do ma gëna a gore si yéen yére waaw léegi yaa ma gëna xam abal dëm ñu dégg ko <laughs> sànq ba tey ba ma ko dàkkee ba tay fanu ma dem ñew gisuma far eh eh eh, eh far kay ah yaakaar gisuma la yow foo nekkoon Fallou. yaay. fa nga ay Fallou yow mii di ma rey. yow boobu mën a nga bëgg a ñëw Moodu li nga na ko jàppale. la bëgg a tàggatoo dama la bëgg a tàggatoo dama Ik Kuna nyuso. Jangan boleh nyuso. Ya Ja, ya aku dah akan dia aku. Mana lu mai jamu? Ai, ai. Kamu tahu. Ya. Kamu. Ya, kamu. Ya baka manuluwarin sa loko lang natin ay. Yay. Ya da Ya, eh. ya da ya, ya. Ya ba mo dem ya. Ya ba mo ba ya. Ay kiyak na sa mga. Ya ba mo. Yay. Ay falo mo dem. Ay ya may laki ya, ya may laki. Ya ya may laki. Alam mo, yung madam di, alam mo, madam di. Yan may laki yan, yan may lak. Alam mo, yan may lak. Yan, madam di, sa mata mo, buwan mo, madam di. Naman na, ni wak na alam bayang ko, kaya pagulungan niya mo. No, ay, rin, di sa Ayo, ayo, ayo, ayo, ay, Ayo, ay, ay, ayo. ay, madam di, Ayo Kaya pagulungan niya mo. Ay, sama bayan na bayan na Ayo, ayo di. Ay, ayo lilo ko dyan, ay, lilo ko dyan. Raka nah, lebih gado sama akrek <laughs> sama hati saya <laughs> sama tante malu aku mau gimana nih Hehehehe <laughs> li may àdduna àdduna nee lu waay rendu sa loxo lay naaj te yàlla nee na nga jël nit ni ni nga jàppee sa dom. jàppee ko dom jàmbur ni nga dom doomu jàmbur rek nga war a jàppee sa dom. waaye yéen néeg la boromatee fanam bu leen fàtte ni loolu léegi rek la la yàlla di fay boo léegi lu baax am lu baax boo léegi lu baax leen fàtte yéen ñi see woon ak si benn sama code promo 21F la. daa bëgg da ngeen xam da ngeen 65 francs bu ne dee mi ci commentaire yi gars yi ñoo ko gisandoo dafa bëggoon liggéey doomu jaamu mu def kon mu def. तुम तो बोल दिए दो क्या मुझे बोल दो वो मुंह मुझे दो हार मत दे हम ना समझ आई मैं मुर मेरे मुंह की